mais tey euh, victoire askanu Sénégal ndaxte xam ngeen ne Macky Sall gëj na autoriser manifestation d'ailleurs sax may profito di wax ne euh, j'espère que manifestation autorisée bi du doon exception est que manifestation yii di ñëw dinañ ko autoriser donc muy benn ñaareel bi manifestation bi ndam la ci askanu Sénégal ndam bu topp ci benn ndam muy décision conseil constitutionnel euh, ndamu Sénégal ndamu askanu Sénégal waaye ndam tamit bu méttee méttee ndaxte ñetti nit gaañu nañ ci ñetti nit faatu nañ ci Alpha Tunkara Modou Gueye Landing Camara yàlla na yàlla euh, ma xaare leen aljana yàlla na suuf woyof seen kaw ndam bu métti la ndaxte ay bakkan waru ci woon rak ay nit waruñu si woon faatu léegi nag conseil constitutionnel jël na dogal ñun xam nañ Macky sàll du wax lu muy def du def lu muy wax. lan moo des. du wax lu muy def du def lu muy wax moo tax ñun itam bu ñu bàyyi taxawaay bi nañ tey la ñu war a gën a dëgëral taxawaay bi ngir mu respecter décision constitutionnelle ngir mu respecter itam constitution wu Sénégal ñu ko mayee porox ndoll bu tuuti bu ñu waxee ne conseil constitutionnel jël na dogal léegi jeex na nañu dem nelaw wallaahi bu ñu demee nelaw président Macky Sall sax fi wala président Macky Sall organiser fi élection yoo xam ne du jaar yoon donc ñun vigilance prudence taxawaay bi na continuer mobilisation bi na continuer ndaxte président Macky Sall du ku ñuy gëm rapport de force la gëm moo tax match bi am solo moo tax rapport de force bi ñu war ko continuer dëgëral taxawal ko dooleel ko ba mu abal ñu. abal ñu nag ndaxte élection yi da koy organiser limite bi mooy le 2 avril le 2 avril day dem le 2 avril day def passation de service le 2 avril mooy bés bu mujj ci mandaawam duñ ko si yokkal benn weer duñ ko ci yokkal benn semaine duñ ko ci yokkal benn fan duñ ko si yokkal benn minute na ko xam bu ko xamulee. wallaahi dinañ ko fekk ca pale ba comme nu mu ko waxee woon suñu maam ab Ablaye Wade le trois avril bu ko fi fekkee moom moo ko digle woon dinañ ko fekk pale présidentiel ñun nag bëgguñu egg foofu jàmm ak salaam la ñu bëgg a jàmm salaam la ñu bëgg moom moo ko jàppoon moom moo koy bàyyi moom moo ko jàppoon moom moo koy bàyyi waaye incha allah ñun ñëpp nañu xeex askanu Sénégal tànn ki nga xam ne moom la bëgg a fal loolu la ñu bëgg a du Macky Sall moo ko war a tànn du France moo ko war a tànn du kenn moo ko war a tànn jërëjëf